abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor ak ci bitim réew. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, euh, je m'en vais tout d'abord vous présenter la délégation que l'honorable khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a voulu envoyer auprès de vous, auprès de Sa Majesté, euh, le roi Mohammed VI, que vous représentez ici. Euh, il nous a demandé d'être conduit par son demi-frère ici présent, l'honorable Serigne Abdou samat Mbake, euh, fils de Serigne Chouaïbou, lui-même fils de Khadim Rassoul. Il est accompagné par euh, Serigne Chouaïbou Mbake, qui est le fils du Khalif général de Mouride, Serigne Abdou Khadir Mbake, votre vieille connaissance, qui joue les intermédiaires entre lui et euh, le, royaume chérifien. Et moi-même, Khadim Diop euh, son secrétaire général donc le khalife général des Mourides Excellence en composant cette délégation a voulu en son nom propre et au nom de toute la communauté mouride et musulmane présenter à Sa Majesté le roi Mohammed VI que Allah le protège ainsi qu'au peuple frère marocain ses sincères condoléances du terrible tremblement de terre survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre dans votre cher pays frère et ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. L'honorable Serigne Mountakha prie que Allah accueille tous ceux qui ont perdu la vie en son paradis Firdaus. Et il prie également qu'il aide le peuple chérifien nos frères en islam, à surmonter cette épreuve très dure qui appelle de tous les musulmans leur solidarité à l'endroit du peuple marocain. Pour marquer sa solidarité agissante et celle de toute la communauté, le Khalif envoie vers vous, Excellence Monsieur l'ambassadeur, cette forte délégation conduite, comme je viens de le dire, par son demi-frère ici présent, Serigne Abdoul Samad Mbacké, qui vient vous apporter réconfort moral, mais aussi un soutien symbolique d'un montant de 100 millions de francs CFA en guise d'assistance aux sinistrés qui sont nos frères en Allah. Il formule en même temps d'ardentes prières à l'endroit du peuple marocain afin qu'il se relève de cette épreuve et continue sa marche vers la prospérité sur le chemin tracé par les hommes de Dieu que nous avons en commun et grâce à qui nous sommes unis par la foi. Voilà les propos que le calife nous a, nous a chargés à travers Seigne Abdoul Samad Mbaké ici présent de transmettre à travers votre personne à Sa Majesté le roi Mohamed VI en priant d'agréer nos salutations les plus respectueuses et les plus cordiales. Ah. Euh, exprimer ma mmh. profonde gratitude pour ce geste euh, euh, très symbolique. D'abord, euh, la venue de la délégation du, du, du, du, haut niveau, du très haut niveau, donc, euh, y compris donc, euh, les membres de la, de la famille du Cheikh Montara. Donc ça, ça dénote vraiment de, de l'intérêt que euh, son éminence porte euh, euh, au, au, royaume chérifien au, et puis au lien particulier qui le lie à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, euh, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste. Euh, c'est encore euh, un symbole de cette relation toute particulière qui a toujours euh, lié euh, la ville sacrée de Touba euh, au royaume chérifien. Et ça, euh, enfin, dénote de cette solidarité qui a toujours euh, existé entre nous et qui est aussi un des, des piliers de l'islam. L'appartenance à l'islam, c'est aussi cette solidarité euh, permanente, euh, cette solidarité agissante entre musulmans là où ils sont. Donc, euh, je crois que euh, cette, euh, cette, démarche euh, est à saluer. Est à saluer, bien qu'il soit tout à fait naturel dans nos relations quotidiennes, mais cette euh, démarche donc, est vraiment la bienvenue et elle est appréciée et nous sommes vraiment fiers de cette relation toute euh, humaine Euh, spirituel, euh, mais aussi de ce soin particulier que chacun apporte à l'autre. Euh, donc vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas seul, que nous sommes avec vous. Et je voudrais aussi dire que dès le début, son éminence euh, s'est adressée à Sa Majesté le Roi euh, Mohamed VI, Amir al-Mouminin, euh, en lui adressant, donc lui envoyant une lettre de condoléances dès le début. Donc, euh, et je crois que la boucle est bouclée, comme on dit, et euh, les faits sont là. Et nous vous disons toute notre reconnaissance euh, et toute notre euh, considération. Et je vous demanderai de transmettre euh, à son éminence euh, vraiment les remerciements plus euh, chaleureux de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, et aussi lui transmettre euh, les salutations fraternelles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Euh, nous sommes, euh, nous, encore une fois, merci euh, pour cet euh, élan de solidarité admirable. Et Inch'Allah, qu'Allah protège nos, nos deux pays, le, le, le, le, Sénégal et le Maroc, mm -hmm. et qu'Allah protège euh, nos leaders mhm. et qu'Allah euh, donc nous rassure dans nos pas mhm. et euh, nous permette vraiment d'aller de l'avant euh, sur le plan de la, de la, de la paix, de la sécurité, de, de, de la prospérité. Mhm. Et wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina moolana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi dawi radwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yëpp noo ngi leen di nuyu tey nag ñu ñëwoon fii ci ambassade Maroc ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toogee jataayub Cheikhul Khadim fekk fi ambassadeur bi ak ñi mu àndal ci liggéey bi ngir yëkkati njaalum sëriñ bi teg ko ci loxoom ak ndimbalam loo xam ne lu tuur la ci li mu yéene mu dem ci kilifa ak Maroc gépp ak njabootu Maroc gi nekk fii ci Sénégal ak ga nekk foofa njaal mu matale moo xam ne da koo jëmeli ci euh, réew moo xam ne ak Sénégal dañoo bokk di dëkkandoo di ay doomi ndey te yàgg lool te ànd bi rafet naka jekk mu waxoon ne nag nañ ñëw fekk ne jiite jiitaloon na ay leetar yooyu njaal ba mu egsi woon ci ñoom waaye mu yebaloon ma ne na ànd ak njaboot gii sëñ Chouaïb bu di doomam sëñ Abdul Xaadir di sëtam sëñ Chouaïb bu Bass Anta Ñaŋ di doomam ak sëñ Xaadim mii di jarbaatam tey secrétaire am ak mboolem délégation bi ñu ci ànd ngir ñu jëmmal ko fi ngir tiisu metti wi ak nattu bii nga xam ne kone xam ne ne jullit nattu lay am waaye mbugal moom ci ñi gëmut yàlla la jëm kon nag li am na rek la muy ñaan nag suñ borom mu teggi nattu boobu te jàmmal leen te may leen tawféex ak mucc di jaare ñëpp di nuyu bu baax a baax ambassadeur bi di rafetlu taxawaayam ak taxawaayu kilifaam gi fi nekkal noo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ay xibaar yu wér te aju si réew mi ak ci bitim